waxuñu suquma ñàpp yi ministre yëpp la ñuy jëli ñëw indi ko fi yéen de lii nag moom xoolal tuuti la rek si mbooloom parce que du fa leen jaar li si moo ëpp li si biti moo ëpp on a dépassé cinq millions on a léegi ñu xoolal ñu ngi si six millions léegi wax bi de nekkul ku ay travers les réseaux sociaux non non xoolal yàlla tey xoolal sama téléphone baa ngi koy mu ngi nii mu ngi nii di ko sonné dëgg li may wax duul ay falsification ay faux billets. Bougane day ñëw suba xam nga loolu. kan si bon Guèye Dany ngay wax bon Guèye Dany. ah bon ah, Guèye Dany la. Saara Saara. Ah. damay focus bon Guèye Dany laa wax bon Guèye Dany. bon Guèye Dany côté. oto yoo xam ne ay at musuma si dugg tey yooyu laa dugg man lii Ousmane seen naa Ousmane dugg ah man maa foo jógee ba ngay mexe laa jógee ngay mexe xam nga politiciens yi ñun askan wi ñun dañ leen a raw. niveau bu ñu nekk ak ñun niveau bu ñu nekk ñoo wutee gis nga ñun suñu defee ñun dofu ñu xam nañ lu baax luy njëriñ Sénégal su ñu nekk di bëlëve ni nangam nangam lu ñu ay diaboliser lu ne gis nga ñun ku dugg ci biir arena nga xam ni nit ñi lu leen yëkkati beneen dimension lañ nekk par rapport ak ñun dimension bu ñu nekk gis nga lii du caaxaan de lii mbirum yàlla la nit ñi ku woote dëgg dëgg si début bi da ngay wéet mais soo demee à la yàlla moo lay may doole mën ngaa di parti au boo xam ne dafay woote cagnotte pour pour kii bi askan wi cotiser ko lu muy campagne hein ku fi ñëw danga ngaa jënd sa billet fay sa paas en plus nga cotiser nga participer ci cagnotte bi loolu ku ko man na ko def. merci beaucoup alors nañu continuer doxoon suba léegi jël euh, réaction yi mais jël également ambiance yi euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk suñu yaay yi nga xamante ni voilà ñoom ñoo fi nekk ñoo euh, jël leen. voilà ñu continuer li nga xamante ni moom mooy réaction yi. cinquième position waaw ñun nag Sénégal moom Sonko rek la ñuy topp moom rek la ñuy topp parce que li tax ñu koy topp mooy dafa nekk ci dëgg doon ñu wax dëgg di def dëgg ba tey wàccul dëgg googu moo tax ñu di ko top dama tëj sama magasin rap ñëw topp tëj sama kër ñëw topp Sonko sama jëkkër a nga Belgique moom bi tamit Sonko rek lay topp man maa ngi jógee Maris waaw waaw cité Hacienda résidence waaw ñun topp ñu ku dul Sonko moom lañu ñu sopp moom la ñuy àndal moom la ñu wóolu waaw di ko ñaanal saa su ne nag ci barke alxuraanu karim li mu namm ci Sénégal moog Bassirou Diomaye jaxaar fay ak ay ministre am ak ay sympathisant am ak ay militant am yëpp yal na ko yàlla def ci barke alxuraanu karim ca kaw ca kanam rek ñun guddi bëccëg suba ngoon Sonko rek lañuy ñuy topp waaw voilà ñu doxantu. Kër Massar maa fi teewal jaagut ndaam raasi parce que. yow gannaaw gannaaw. gannaaw gaa ngi nii. wala wala jaagut ndaam raasi ñun. parce que bas gaa yi. si réew mi li nga xam ne mooy wàllu développement tey li ngeen di jaay nii mbaa yéen a ngi gis seen bopp mbaa tamit mbir yi cherul trop. day yokk nag waaye loolu xam nga rek ndax ñëpp koy muñ. ndax Sénégal dafa toll foo xam ne dañ koy defar fu toll nii il faut ñun ñëpp ñu muñ ko ànd ak ndoor ndax am nañ yaakaar ci moom bu baax ndax dëgg yàlla jub jubal jubbante bi ñun ñëpp ñu fi di ñaan Ousmane Sonko nag réussir total si barki alxuraani karim lu mu oote dañ fay dem amul garaat théâtre bi passé rek ñu jaagu Ndamaraas ñëpp a ñëw mooy boo xam ne ñëwutoon man Moustapha bu Sonko ñu gën maa xam waaw 76 461 69 48 waaw am naa compte TikTok tamit Moussa Ndamra laa si waaw bu Sonko na jàmm baax Moussa bu Sonko waaw dañuy dugg publier dam ñu bëgg Ndamra te Ndamra xam nga mi dafa am solo dafa am solo te te ne dafa war a doon si garab yoo xam ne ko war a transformer ëllëg mu dox garab ñu lay nuyu waaw waaye Ndamra mais jëlama Ndamra Fallou Diouf. Euh, Fallou tey lii ni mel nii lii def naa ci lu mu bëri bëri vingt cinq mille. vingt cinq mille waaw. dañu si dañ jël gaal gi au lieu ñu toog si réew mi war a liggéey. non loolu amul solo adduna moom fépp fépp métti fen neexul foofu fi ngay demee dafa métti kon nga toog fi def ko sam mu am njariñ quoi yaa ngi def gars yi. mais grand taxawal est-ce que patriote ñu ngi jënd si ñu ngi jënd si ndamaraas waa ñu ngi siy jàpp baax waaw. Fallou Diouf. Fallou Ndamara. voilà alors ñu continuer. man maa yoroon micro bi Darou Khoudoss. waaw ah, la gaañoon. waaw bu Sonko. Euh, ñun ñu ngi bokk élite patriote. Hmm. Euh, sa Sénégal Sénégal fi mu toll nii war nañu xam ki dëgg ak fan la dëgg féete instant mi toll hmm. maman Africa bu Sonko ñun ñooy élite élite patriote bi ngay dégg bu Mara Niass jiite ak Cheikh Bara Ndiaye ñun ñii ñoo demoon campagne dem Kokki dem Saint-Louis man foofu laa bokk élite patriote la bokk mhm. Mhm. mais Pikine Pikine li ko dalee Mousdalifa jidda caaray kaw mhm. ba Texaco ba Cité Pépinière man Maman Africa maa ko téye maa téye Pikine gépp di wax ne nag képp kuy patriot tey jii li ñu waruñoo xaar ci dara mu sedd di ñaanal yàlla ñi fi ñi nga xamante ne yàlla ñoom la fi teg instant bi ñu topp nañ topp rek li li ñëpp wax jub jubal jubanti waa di sant di gërëm moor parking voilà ñuy continuer euh, le portage bi alors di leen fàttali nii euh, fi xamante ni moom mooy Dakar Arena alors li ñu fi andi nag bon xam ngeen ko jaru sax ñu koy rappelé ndax euh, Ousmane Sonko moo fi woote ab comme ni ngeen ko gisee d'ailleurs Ousmane Sonko moo moo fi woote donc voilà. mais yaa ñu ngi lay nañ ma ba pare. ñu ñoo lay jëlaat ñoo ngi leen di delloo ziar. yaa booy li nga gis nga kontaan belli nii. non sant yàlla rek. dama sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que dañoo ànd ak ku jara àndal. man musuma politique xaw ma politique xaw ma luy politique dégg nga waaye ba ma gisee Sonko ma ne lii mooy politique dañ doon wax politique du diine du ngor waaye diine ngi nii ngor a ngi nii lam ñu waxoon démb ak barki dem ba tey jógewut ci ca euh, événement euh, aji saar ya la laa am lu ma metti boobu xaw ma sax kuy Sonko ma ñëw sama magasin ñuy wax waxu ay euh, jiiñaate ay lii ma am lu ma metti ma ne yàlla yal nag ma leeralal lii ndax metti gum ma metti boobu xaw ma sax kuy Sonko ma dem war koo listaxaar listaxaaruma ko sax liñ naan yàlla yéene lay fay du fay jëf dëgg la dama tëdd ba guddi yàlla wan ma loo xam ne musuma koo gis sama àdduna barke alxuraanu karim ma yeewu ne dem sama magasin ne leen dëkk bi dina tàkk ñu ne lu xew yaa saydaa lu xew sarax naa nga mën a loolu yëpp amul dañoo tooñ nitu yàlla te yàlla mer na dina wàccee meram ca la événement 2021 ya am ñëpp naan ma yaa Seyda Yane boobu ba tey noppeewu ma di ànd ak Sonko heure buy dem am procès liste xaar naa ko ba fii may waxee ak yow tey rek bi ma naa fi laa yor-yor ñaan naa dem jàmm ñëw jàmm damaa tëj sama magasin Sonko ma ko jaral. liste xaar nga élection yi. yan. élection législative liste xaar nga ko leer na nañ. lu ah, ma jox kay leer na nañ macha lii rek mooy lii. tey la élection yi leer 17 novembre tey la macha allah. sama lay suivre saa su ne ci yow bu ci say intervention ci say question ci say lep ak sa pertinence yal na yàlla dëgëral leen ci barke alxuraanu karim ko dañ koy ñaanal yàlla rek di ñaanal suñu honorable député bii di madame Mbacké ñun mariste lañ jóge maris ah, ah, madame Mbacké lañ investir vingtième dañ koy ñaanal yàlla la lion di mariste mu am ndam lu set wecc biir assemblée waaw. yaa ma da nga dëgg nag. maa ngi jógee ba Ndar ba Séeréer ndox Ousmane Sonko moo ma ka jaral. kañ nga kañ nga bëgg ba ni waa député élection Sonko moo ka jar moo ma ka jaral. grand loo wax dee tey. lu tax ñuy dee. grand fii lekk. boo demee bopp nit ñi ngay yëg bopp nit man damaa yëg boobu wàcc waa ne pour ñibbi dama ne naa ñëw ba bugaan rek ne yëg naa rek bugaan day woo day ñëw fii suba de fi daanaka lay ñëw même heure lay ñëw xam <laughs> ah, suba ci 17 dama koy conseillé na woote lamb séeréer bu grand yëf lamb séeréer dana def nag na def bopp 2000 2000 fii ñun ñooy yàq suñu xaalis dox ba soos naag bi tàng bi katu katu ba tas sëñ bee ñu ko jaral danaa sëñ bee woote da ko ko lekk lekk nit ñi xaj ñu fi damay wàcc li ñibbi nii sama kër Ousmane ko du nit waaw salaamaaleykum waaw dama leen di du nit den may euh, may tuuti ma dellu ma dellu ci ginnaaw tuuti des événements mooy événements yi jógee nii xam nga fa laa xamee ni président Ousmane Sonko du nit moo parce que dañ ko téye tëj ko tas parti am Macky mu ko téye tas parti am tëj ko nest pour la la pour ñu fàtte ko nest